maa ngi lay nuyu Mamadou Sy Albert. alors may wax rek ni analyste politique nga ñu nar a waxtaanee ci lu jëm ci procès en diffamation opposant euh, Ousmane Sonko ak Mame Mbaye tey jii nan nga ko jàngatee verdict bi nga xamante ne wàcc na. waaw wax ne que tribunal bi joxe na euh, verdict bi euh, mbay Niang am na dëgg que que euh, tribunal bi àtte na que Ousmane Sonko daf ko diffamé loolu tax mu condamné ko deux mois avec sursis ak amende de deux cent millions. Mm-hmm. Oh, loolu moom mooy verdict bi. Mm-hmm. wante procès bi aussi nu mu demee laaj na nit ñi surtout justice bi quand même xoolaat doxalinam. ndaxte mënuñu rendre compte def euh, verdict fekk avocat Ousmane Sonko fekk wuñ ko sax kenn déglul leen hmm. loolu loolu rafetul ci suñu suñu suñu justice hmm. am na aussi ay avocat yi nga xam ne ku naroon jógee bitim réew kooku dañ ko dàq ak beneen avocat bi nga xam ne dañ ko suspendre loolu yëpp day woneen daak procédure bi des na hmm. bon beneen euh, jàngaat bi ñu mën a def aussi mois que bon xëy na tension bi dina wàcc ndax daan bi moom euh, deux mois bon Ousmane Sonko dina mën a participer ci présidentiel bi hmm. euh, loolu mën nañ ci jàngaat aussi que tension bi xëy na xëy na mu wàcc. waaw ci loolu sax la ñuy ñëw ndax tey jii amende la deux cent millions ñu ko daan goo xamante ne deux mois la avec sursis waaye est-ce que tamit loolu mën na impacter ci statut politiku euh, leader u Pastef di Ousmane Sonko. non non yaakaaruma ko Ousmane Sonko candidat la am na parti am euh, am na coalition ah. Yewwi donc euh, defe naa moom daal ci campagne bi moom de de dina am dina mën a def campagne euh, électorale am te du ko ci fekk mhm. wante nag décision situation nu mu demee ni ay militants Pastef nga xam ne ñii ñu ngi ci prison ba léegi ñu ngi leen di arrêté di xaar ndax euh, fu ñu fan lañu mujj pression mu ngi ci kaw euh, Pastef bon loolu nag mën na wàññi doole Pastef ndaxte euh, arrestation emprisonnement ñu lay xoktal force de sécurité yi di la xoktal loolu mën na wàññi ci ci ci ci Pastef quand même wante nag Ousmane Sonko moom def naa loolu du ko du du ko tere liggéey comme ni mu doon liggéey am na engagement bu mat bu mat sëkk. Mhm. ñu gis ne teewul ci procès bi moom Ousmane Sonko euh, da nga gis ne état de santé moo ko ko mayul parce que tamit am na certificat médical bu toll ci dix jours. waa loolu loolu lu am la am na certificat médical mën na bañ a teew bon euh, loolu. warul euh, tax ñu bañ a gis ne Ousmane Sonko nu mu gisee procès ni mu demee nii euh, procès bi daf ko sàppi ndax ndaxte ñu toj sa vitre ñu ñu gaañ la ba nga dem ci hôpital ñuy maltraité sa militant ñuy gaz sax démb ay député mais loolu moo tax Ousmane Sonko pour mu am confiance ci justice bi du yomb euh, de de ko moom de de de dafa mel ni daal amatul woon benn confiance ci justice bi loo loolu surtout moo tax euh, demul et puis ni mu gisee aussi ñuy traité avocat am mm-hmm. bon loolu du ko joxe euh, du ko jox doole pour dem teeri donc loolu yëpp def naa moo moo moo tax mu mu mu mu toog këram. est-ce que gisoo yi tamit ne euh, li ñu suspendre avocat am di maître Ousseynou Fall bokk na ci euh, li jëm rek ci affaiblir defence Ousmane Sonko ginnaaw vingt quatre balaa sax euh, procès bi di taxaw. waaw mooy procédure bi moom da da jaarul yoon jaar jaarul yoon dafa mel ni tribunal bi dafa bëggoon tey tey joxe verdict am lu ci mënoon am dinañ ko joxe. loolu loolu lépp tribunal bi wane tribunal nag warul doxee noonu ndaxte euh, euh, lu nekk xeejoon na ci euh, fii ay ay arrestation emprisonnement dégâts matériels yi mais loolu yëpp waroon na won que tribunal bi waru waruñu yàkkamti pour joxe verdict bi malheureusement bon ñoom tey la ñu bëggoon def verdict joxe verdict bi joxe nañu verdict bi mais procédure bi moom Euh, jaarul euh, jaarul yoon et aussi euh, Ousmane Sonko ak avocat am xëy na sax nañu def ay appel daal. alo est-ce que gisoo yi tamit ne est-ce que ànd nga ci raf li ñu ànd nga ci li ñu refoulé ki nga xamante ne mooy avocat bi di Juan Branco ñu jugee Paris ñëw rek ñu delloowaat ko ci guddi si AIBD. non non loolu kay kenn mënu ci ànd kenn waru ci ànd. ndaxte quand lu ñu mënte wax lu ñu mënte wax Sénégal démocratie la euh, ay réew yi nga xam ne ay euh, amul démocratie dictature moo am loolu lañ doon gis ci Afrique avocat ma euh, nga ñëw ñu dàq la wala ñu tëj la bon mais Sénégal bu demee ba foofu di tere avocat nit ki jóge France pour défendre nit loolu rafetul ci suñu démocratie rafetul ci suñu état bi loolu aussi dina yàq suñu dette surtout ci ci France wala ci Union européenne moom euh, loolu baaxul ci suñu suñu image réew. Mhm. alors moto yi nga xamante ni tamit tere leen euh, ñu daw bus Dakar dem dikki ni mel commerce bi tamit gis nañ ne lépp dafa taxaw est-ce que loolu tamit du impacte économie wu Sénégal. waaw dina am impact. parce que euh, bon boo gisee loolu yëpp préfet gouverneur jël décision fii. Euh, préfet jël démb décision force de sécurité ñu mobiliser maltraitance avocat yi loolu yëpp li muy firnde mooy que nguur gi justice bi dafa bëggoon tey def procès bi pare ci génn ci ñoom dañu yàkkamti et loolu euh, pour en tout cas économie ñi nga xam ne ay partenaires bu ñu gisee loolu euh, surtout boo ci boolee avocat français bi bon du image bu baax ci justice kuy joxe euh, kuy def investissement ci réew da nga a am justice bi nga xam ne daal man dalal sa xel loolu suñu justice ñu mu def nii mënul dalal euh, investisseur bon c'est la même chose aussi pour les commerçants sénégalais parce que sénégalais yi aussi bugg nañu am justice bi nga xam ne day àtte mais pas de justice bi nga xam ne dañu lay télécommandé que kii lu ñu bëgg rek nga def ko donc loolu moom baaxul ci affaire euh, opérateur Sénégal baaxul ci opérateur internationaux. est-ce que ànd ngay tamit ci doxinu ñaxtu bi opposition bëgg amal euh, veillu fête de l'indépendance 3 euh, avril foog nga ne dinañ ko taxawal. dinañ dinañ taxawal parce que bon fii procès Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang jeex na wante problème diggante askan yeewe askan ak nguur gi jeexagul. tension bi mu ngi fii ba léegi bras de fer bi mu ngi fii ba léegi euh, le de gis nga dañu leen gazé démb euh, tey ñoom ñëpp dañu mobiliser pour dem ci procès donc ça veut dire que le 3 avril aussi ñoom dinañu maintenir seen de seen manifestation pour def pression parce que bu doon rek euh, pouvoir ak opposition mënoon nañu toog am xel waxtaan benn opposition du xalaat sax organiser manifestation trois avril bi nga xam ne veille suñu indépendance loolu yëpp su mënee am c'est que amul tooguñu nguur gi ak euh, opposition tooguñu waxtaanuñu amul jubóo tension tension bi nag boo moytul dina continuer ba ba le 3 ba le 3 avril. alors donc euh, ñuy mën a xaar daal dëkk bi nar naa gën a tàng ci trois avril bi boo moytuwul. ah boo moytuwul dina dina dina dina tàng parce que bon ñu ci année électorale la ñu nekk. bon boo xoolee tey jii euh, Ousmane Sonko c'est vrai que procès bi euh, presque jeex na mais parce que affaire am jeexul ñu ñu ñu ngi ci prison ñu ñu ngi xaar est-ce que dinañu dina leen tëj am am déet bon gouverneur procureur aussi li mu wax ci ay commando loolu fu mu jaar xëy mën na dal euh, Pastef donc tension bi mu ngi fii Euh, bu ñu deful ndànk daal le 3 aussi le 3 avril mën na indi tension bu gën a gën a rëy li ñu gisoon le 16 euh, le 16 mars. kon nag Mamadou Sy ma lay jaajëfal bu baax ci li ñu nangul entretien bi. jërëjëf Awa may fàttali rek euh, ñi ñuy déglu que ne analyste politique nga merci beaucoup et également ci disponibilité bi. merci beaucoup. Awa jërëjëf.